Eh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di bu baax. Euh, lañ mën a wax de si si kii JP. bon JP moom euh, li nga mën a wax ci moom mooy tey journée wane na ko quoi nit ku baax la woon nekk koo xamante ni nii bon ñu bëri sax ñu comprendre que ni chrétien la woon parce que musulman yi la doon xëngaatal di def lépp chaque instant mu JP kenn mënu xam kan kan mooy xaritam dëgg-dëgg parce que ñëpp la bëggoon ñëpp la nekkaloon maanaam ku nekk da nga yaakaar ni JP yow la gën a bëgg. man ñu bëri ñu ma gisee samay poste ak moom fu ñuy nekkee dañ naan kon da nga xam JP ma leen JP dafa bëri ay xarit yoo xamante ne nii kenn xamul ne xamante naa ak ñoom sax parce que nit bu yaatu la woon. en plus li ñu doon def ci acteur social li ci ëpp moom moo nekkoon coordinateur bi di def ay affaires yu bëri moo ci gënoon sawar maanaam bëri na ñi ci bëri ñu ngi ciy liggéey mais moom moo nekkoon maillon spécial bi li nga xamante ne nii moo ci gënoon sonn. donc te journée bi moo tax mënoo fi xàmmee chrétien ou musulman parce que tamit lii lañ ko desee leen mooy dernier jour bi ñëw taxaw assister ko quoi. Euh, la mën a wax loo xam ne peut-être public bi xamuñu ko woon quoi bon lu nit ñi xamul JP parce que nit ñi moom li leen lañ mën ñu xamul si JP parce que JP dafa nekk koo xamante ne nii moom lim gënoon bëgg mooy dañuy dem fen moom da ngay mer sax da nga ko JP bëggu kenn mer même bu ñu nekkee ci match sax di football ñu mën ñu trois wala quatre day dugal ñëpp parce que moom il ne faut pas que bëggul kenn mer soo dafa nekkoon doomu aadama boo xamante ni dama koy wax ci gars yi euh, yàlla nag xol lay fay mais franchement par xolam rafetoon na rafet boo xamante ni ñun ak bi muy dund dañ ko doon wax bàyyiwu bañ dee ñu wax ko dañ doon woote man Edou musa dañuy wootante di wax maanaam baaxu JP bi muy dund ak compréhension bi mu am ci doomu aadama loolu yàlla may na ko quoi. Euh, voilà soo bokk nga ñoo xam ne ñoo njëkk jël benn vidéo boo xam ne peut-être tooyoon na xool nañu euh, xool musulman yu waaw non moom moom moom noonu la mel moo tax ma ne moom noonu la mel ñu bëri dañ bu lay waat naan la ay barke sëñ Fallou nan la billahi c'est-à-dire dafa nekk doomu aadama boo xamante nii maanaam buñ la waxul ni kii du chrétien doo ko xam parce que doxee bu ko waxee parce que dafa màggandoog euh, musulman yi mais tamit dafa am lu ñu am Sénégal moo te loolu dafa am solo mooy maanaam bu ñuy dund ci cohésion bi ñuy dund musulman chrétien yi maanaam boo demee boo yàgg tukki dem extérieur di nga gis tubaab yi nga xam ne ñu dugg ci diine wala dara di nga gis ni ñuy dundee musulman yi ni mu rafetee Jean Paul loolu la comprendre loolu la doon dundee musulman yi amul bi muy wax ma su ma ndog dama allahumma laka sumtu wa bika amantu c'est-à-dire daa nekkoon doomu aadama boo xamante ko mais Jean Paul lu mu def ci ci ci ay sénégalais ay musulman yu ne ci kaso bi ñu feebar ñu soxla deret am na koo xam mu ngi fanaan ci jàkka te def ko parce que dafa nangu woon social di dimbal nit ñi boo joxee boo joxul dalay teg pression da ngay mer da lay bousculer booy jox li ma xaalis bi damay dem c'est-à-dire wallaahi nit ñi luñ ko jugé li mu def li ñu xam ci moom ñun moo tax ñu taxaw fi tey ndax xam nañ loolu moo dëkk dëgg